Salut les amis de Sport TV, merci encore Gaël de la confiance renouvelée, merci de vous des likes, merci de vous des abonnés, merci également Gaël d'y baisser les commentaires. Un plaisir renouvelé chaque fois di partager gain information yi mbokk sénégalais yi fépp fële mënti nekk quatorze régions du Sénégal ruqruxaat yi gox-goxaat yi ñu ngi leen di jaajëfal ñu nekk également ci lal hôpital yi ci kër yi tëdd feebar yàlla na suñu borom fëgg seen bopp ngeen rek jàmm ñu nekk ci kaso yi ngeen xam ne aussi erreur judiciaire gi ñu leen ñu deful moo leen fa yóbbu suñu borom génne leen fa delluwaat leen seen i njaboot ñu delluwaat duna suñu borom xar leen àjjana fi daw si gars yi te yéexee ñu on avance ensemble dans la magie des sportifs Olivier l'actualité en continu ga actualité bi ñu Pellegrini bi daal artu jëm ci Youssouf Sabaly ak Coupe d'Afrique bi également ki xam ne moom Boloni di entraîneur bu Lamine Camara daal wax ci moom wax aussi ci potentielu joueur bi ak aussi fi mu jàpp ne fi mun a yegg laata boobu nag gars yi tey dañu leen di présenter le joueur le plus capé de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations muy ki nga xam donc Rigobert Song le sélectionneur du Cameroun Coupe d'Afrique avec les Lions indomptables du Cameroun qui dit donc euh, euh, l'entraîneur Rigobert Song pendant ce temps ki nga xam ne nag donc beneen légende ah di Dani Alves moom nag gars le février incha allah rabi dañu war a teg procès daal atte ci liñ koy jiiñ dafa daal di siif ab euh, benn soxna ne nii daal jur coow ñuy wax ne ba juróom-ñeenti ati kaso daal gars yi sàkku di Ezekiel Lavezzi xam ngeen ko l'ancien joueur du après dañ ko daal di xoos paaka beneen version bi nag nee nañ paaka bi kenn xoos ko moom moo ko téewoon am benn mbokk bu ko doon nangu ci moom far mu gaañal ko gaañ bu ndaw pendant ce temps mooy Victor Boniface gars yi moo teg tànk du côté de la Bundesliga exceptionnel incroyable xa fàttaliku moom fekk ko joueur africain mës a defee ci championnat bu munti doon moom nag cinq euh, mois mu koy tegle juróomi mu koy tegle kii nag di également euh, Harry moo tegle Munich, jour du mois d'octobre et du mois de novembre, l'attaquant anglais Sir hein, qui dit Harry Kane. Monek également, attaquant bi gëna prolifique euh, par rapport à donc au nombre de buts, nombre également de passes au niveau des différents championnats. Diamond Harry Kane en 2023, moom la ak Harry kii di Hollande, Victor Boniface, Jude Bellingham, Mbappé, Salah, Girassi, Watkins, Martinez, Wirtz, entre autres. Pendant ce temps, gars yi ju bëri nag jàpp ngeen ne kii nag di Erling Braut Haaland mooy le il est le joueur le plus difficile, décisif plutôt, mais pas le plus efficace. Le plus efficace, moi, le joueur, bien entendu, jamaïcain du côté d'Aston Villa. Chaque 61 minutes, Moudadi, Dougal également. Alors, qui est donc euh, Mascardo, euh, Gabriel Mascardo, euh, joueur bien gaï, joueur brésilien, le pépite, le fin de Paris Saint-Germain, moi, tu vois, 22 millions, l'année, on a pour recruter le milieu de terrain, Mascardo, bien entendu, qui n'a dit

Luton Town bi daal di woon daanu ci terrain bi am malaise ba tax match bi ko ñoom ak Middlesbrough Bournemouth plutôt mu jul egg fi ne ni match bi dañ ko war a joué waat ah, euh, nag dañoo juboo pour benn moment ëllëg daal la wax ndax ligue bi nga xam ne ligue des nations teg ñoom ah, dañu mën a créer seen super ligue bopp te nag mën na jur coow loolu waa UEFA daal daal di jàpp Laszlo Baloni mooy l'entraîneur du FC moom nag wax na ci benn joueur sénégalais boo xam ne nag gars yi fi ne nii nee booy bi mën na jouer huit mais aussi ne fa nekk huit boo xam ne ah, donc mën na dem fu gën a sori et joueur loo xam ne il est très très très talentueux genre joueur la bëgg loolu daal Lalas Dóobaleni moo ko wax également di wax aussi ni ñu ko war a mën gën a utiliser xam naa nag jox na piste Aliou Cissé moom nag moo ci des bu fekkee ne du damaloo booy Pellegrini wax na ci kamba Youssouf Sabaly Sabaly nee nag Sabaly fi ne nii daal ah ñu ngi ñaan mu wër balaa boobu mais pour l' instant pour dem ci CAN bi mais on l' espère dina wér waxuma jouer CAN bi rek mais jouer CAN bi ñëw jouer ak ñun loolu la Pellegrini wax jëm ci nag li nga xam situation Sabaly bi nga xam ne ba léegi leeragul ci état de forme par rapport ak mën a dem CAN bi wala dem ci CAN bi nag en tout cas fi dina wër péng laata Coupe d'Afrique parce que manqué ñaari Coupe d'Afrique ce serait vraiment dommage pour l'un des meilleurs Sénégal la xam moom ñëwee Sénégal ba léegi mi ngi toj mais gañagul benn trophée par rapport li nga xam ne nag mooy lii di Coupe d'Afrique bi Aliou nag génn na listement gis ngeen ko cinquante cinq joueurs la yoo xam ne nag gis nañ ci yenn U20 yoo xam ne jàpp nañ ne ñun pënd la rek quoi mais gisuñu fi également joueurs blessure bi nga xam ne ba léegi entraîneur na des naa mi ngi ñaan mu wér wéy leen di like wéy on avance ensemble dans la magie de eSport TV Show su baaxee ci la su bonee suñu gars yi jaa ngeen